ñii sant yàlla bu baax di sant njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne tey lu sëñ mbay bu ma am sëñ Tuubaa ñu leen di sant di leen gërëm di ciital cant gi ki nga xam na tey moo fi Cheikh Mouhamadou Mountakha di sëriñ Koso sëñ Maam Thierno Mbacke di koo xam ne dañ koy sagoo di ko tiitaloo ci jëfam ci taxawaayam ci dégg ndigalam ci ron way juróom di suñu way juróom ñëpp muy Cheikh Mamadou Mountakha di ko sant ci taxawaayam ci diine ji di ko sant ci taxawaayam ci réew mi di ko sant ci taxawaayam ci mbokk gi ak ci tariixa bi ak ci jikkoom ndax suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci dukko la ko tagg wa innaka la ala xuluqin asim kon moom bi yëpp dajee dañ koy tagg ci jikkoom lu rafet ci yëpp kër sëñ bay boobu ndax mën naa laa wax ne màggal gii bi ma koy jàpp bi ma ko ko yëgalee mu yëgal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ne ko neel sëñ bay na ma déglu ma woo ko mu ne ma sëñ bi ne na nga déglu yëg na la te dana def li ci war